sukkandiku pour def la déclaration universelle de droits de l'homme du 10 décembre 1948 lan la article bi wax article 2 bi dafa wax ni nit nit la wax kenn sañu koo doyadal mbaa nga toroxal ko mbaa nga suufeel ko ci kaw ab deram nu mu mel ci kaw xalaat yu mu am ci kaw pas bu mu am ak ci kaw gis-gis bu mu am ci sëy luy njaaxum foofu lay génne ci gis-gis bu mu am ci sëy te pourtant si préambule constitution la nekk au nom de sëñ Muntaxa au nom de sëñ Mbay Si Mansour au nom des imams imam dam mi fi nekk ak imam yépp au de des associations islamiques lii la ñu def ci suñu constitution muy njombelu rëy troisième élément bi ñu def ci constitution bi te muy lu grave mooy les nouveaux droits nouveaux droits mooy lan nouveau droit mooy àq ak yelleef yu yees senegale yi ma laaj leen mbokk yi yan àq ak yelleef yu yees lañ amuloon gaa yaa ngi may laajal naan ma non non dañu wax ni suuf si li fi nekk ñoo ñoo ko moom dugal ci àll bi foo fi dem dañ la demal ci diw sàngam mu daggal la suuf si sénégalais yi naka jekk ñoo ko moom nañ bàyyi ay caaxaan yaakaar ni nit ñi amuñu ay xel yu ñuy xalaate nouveau droit sénégalais yi am nañ sañ-sañu dem ak dikk sénégalais am nañu sañ-sañu bay sàmm napp tukki jaay ak a jënd ba ci wax sa xalaat yéen nañ koy koy fàttaliku avant mille instauré nañ ko ci rajo yi wax sa xalaat kon sénégalais yi am nañ droit de manifester yan nouveau droit lañ soxleeti góor a góor guy sëy ak jigéen ak jigéen guy sëy c'est tout te pourtant sénégalais yi lañ ko jëbbal ñu voté ko te koo ci wax mu la man. man Seydina Mouhamad rek laa bëgg ma ne ñun on a un problème très grave takbir takbir li ñu ci dolliwaat mooy lan ñun dajewuñu fii ngir di tudd kenn dajewuñu fii ngir di joxoñ kenn ak tuumaal kenn ñun li ñu séq lañuy waxtaan ñun politique te kenn ku ci nekk cër bala yàlla joxit jox nañ la ko respecté nañ la kon nañu xam ne ñun fim ne li ñu demee ci kilifa yi noonu lañu ñu invité fi nekk nii mouvance présidentielle bi woowoon nañ leen ñu ñëw fekke si ko parce que ñun dañuy jàppalanteeg ñoom noonu la ñu woowee parti politique yi noonu la ñu woowee syndicat yi noonu la woowee ñëpp parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo commencé bokk kon ñu xam ni dajewuñu fi pour di joxoñ kenn ak bëgg a kenn. waaye dafa am ñoo xam ne nag bu fekkente ni li ñu wax dafa am ay fait loolu c'est factuel dañ koy fàttali daf ci suñu tur lañ ko def ki nu dénk suñu kàddu président Obama dafay ñëw mu ne ko pour légalisation góor jigéen paree guñu kon mbir mi xam nañ ko légalisation d'abord góor jigéen paree guñu mooy dañoo nekk ci yoon dañoo àggagul maanaam mbaxal mee ñoragul waaye bu ñoree ñu yàq ko mbaxal mi dafa ñoragul mais su ñoree ñu yàq ko paree guñu loolu dong la firi firiwul leneen loolu nag na ngeen xam ni ñun ñëpp am nañ ci responsabilité bis bu loolu amee ci réew mi beneen bi ci des mooy lan le 26 octobre 2015 ci plateau ITV ñu laaj ko mu ni ay góor jigéen am na Sénégal baa mu baat bi ay góor jigéen am na Sénégal journaliste bi ne ko ndax sañ nañu ñoom. association yi leen di jàppale ñu fesal seen mbir manifester wala sax ñu def campagne campagne moom mooy fexe woo yi ñu leen mbirum góor jigéen a ngi lii ils ont le droit pignon sur la wax maanaam lu lu fees lu kenn lu nëbbutuwul mu ni ko am nañ ko am nañ sañ-sañ bi lii may wax ñëpp dégg nañ ko am nañu sañ-sañ bi la ko wax journaliste ni ko ah mbaa kon njombe du leen ci fekk dara du leen ci fekk mu ni ko dara da leen ci fekk wala du leen ci fekk en tout cas du bàyyi ko ci gouvernement bi ndax dana leen fekk nag bàyyi ko ci askan wi loolu beneen mbir la kon bokk yi loolu mooy misaal dafa mel ni dañoo dem ci ab tool jël jiwu kaani yi jiwu kaan yi ji ko sonn ci coono bu nekk ñu daj ko ci ba noppi bëgg a góob ay pom lii mooy suñu gàllankoor ñun ab tool lañu dem jifa kaani ba noppi di xalaat a góob pom du mas a am ci kaw suuf du mas a am ci kaw suuf kon loolu nañu ko xam responsabilité bi bi ci ku ci nekk am fii ak juróom fukki at pour une première góor jigéen ñi daje nañ fi mbaaw en 2008 daje nañ fi Kaolack gàmmu daje nañ feneen ak feneen mii dañ doon nëbbatu c'est la première fois ci Sénégal ba muy Sénégal ba tey ñuy fësal mbir góor jigéen publiquement c'est la première fois ñuy fësal mbirum góor jigéen publiquement ba noppi ki ko porté ñun néewuñu ko góor jigéen nga néewuñu ko doo góor jigéen góor jigéen ñi ñoo ko ndokkeel ni ko fësal nga suñu mbir waxtu wu nekk yàgg nga koo def ñoo ngi leen ndokkeel donte yaa ngi jot ay saaga yaa ngi jot ay menaces ñoo ngi la ci ndokkeel di la jëfal waaye nanga xam ni waxtu wu ne ñoo ngi sa wet ñun waxuñu ko stop homophobia officiel ñoo ko wax le 6 juin bii ñu nekk nii à 19 heures et quelque ci seen compte Twitter kon c'est une première li ci gën a garaawati te kilifa yi war ko yóbbaale aussi mooy radio télévision bu Sénégal RTS ñoom ñoo diffuser en direct concert góor jigéen boobu RTS bi nga xam ni ku toog fii sa dërëm ma nga cee dem RTS bi nga xam ni ñi ko moom téeméer boo ci jël juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ya boroomi pas-pas lañu RTS bi nga xam ne bu ñu ko taxawalee sénégalais yi ñoo tax waaye RTS man loolu bettuma ci ñoom en 2002 lañ fi teg benn film Desperate Housewives di wax lan yàlla jigéen la wala góor ci RTS laa la wax parce que man li may wax dama koy assumer RTS en 2002 teg nañ ci film boobu indi fi débat yàlla góor la wala jigéen dama ni sénégalais yi ñun am nañu responsabilité bu rëy ci kanam yàlla. cest ñun am nañ responsabilité bu rëy nekk ci ay détails maintenant kenn ku ci nekk di korkoral sa kanam kenn ku ci nekk di xëcc sa kanam maa fi ne maa fi ne fii kenn ku fi ku dul yàlla. fii kenn nekku fi ku dul yàlla. loolu mooy li war a leer ci bopp ñëpp ñun ay jàmm yàlla dong la nekk te duñu jaamu ku dul yàlla mais nii ñu taxawee ni ñun jàmm yàlla lañ ba noppi bëgg a ŋarale tey ñu ngi fii suba ñoo ngi fee ma ne loolu du dëgg du yoon nañ ko seetaan te bàmmeel a ngi ñëwaa ah. bàmmeel mi ngi dikk te kenn ku ci nekk wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda allahu akbar takbir kon su ko defee mbokk yi gis ngeen démb li fi xew nee nañ dañoo demoon jongante ji man awma problème ci yooyu ah ku mu neex nga def ko mais gis nga mobilisation mbooloo yi ni ñu ciy génne instantanément kàddu gi yàlla mënta tax loolu nit ci jóg. ba noppi koo wax mën la wéy man affaire yi ngëm daal problème bu privé la bon ci xol lay nekk man dama bëgg sallallahu alayhi wa koo wax muy bës-bësal ay bët di jooy naan la man yonent ku bëgg yonent bi da ngay jaar ci aw yoonam ku bëgg yonent bi da ngay def li mu digle ku bëgg yonent bi da ngay daw li mu tere mais Sénégal on a de sérieux problèmes ñaareel bi it lii war nañ ci régler jotaay bi ñu def nii man de wax dëgg yàlla maa ngi sàkku di sukk di ram bu jaroon fi mu nekk nii man sama bakkan des fii léegi te loolu mën a am wallaahi azim yàlla na suñu borom jël sama bakkan mais jataay bi ñu def na continuer nit ñi brassage bi di am ñu continuer di waxtaan di wax parce que diine ji ñoo yaakaar ni da nga réglé dara doo réglé tous nga dul réglé man xam naa ni waxtu wi débordé naa te lecture bu kii bi sax defuma ko léegi damay bàyyi ñu def euh, niñ ko niñ ko programme woon waaye nañu xam ni li fi baax ci réew mii yéen ñii seen maam yi ñoo ko fi bàyyi li baax ci réew mii yéen ko def tubaab bi bi muy ñëw ay buur la fi fekkoon Kajoor Bawol Siin Saalum et cetera tubaab bi ñëw jaxasee loolu rey ñenn ñi génn ñi des kon organisation bi fi nekk bu fekkente ni meluñu ni la reste de l'Afrique c'est parce que ay nit a laxasu coono bu ne ñu daj ko am na ñoo xam ne seen i bakkan lañ joxe seen i bakkan lañu joxe au prix de leur vie ngir suuxat fi ak mbaax ba mu fees dell suuf si tey jii kon kenn ëpp leen ndono ma daaneel samay kàddu ci. kilifa gu mag lu mu waxoon Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon nii nit ku ne la dox sa digganteeg sa bàyyi ñett rek la ñett sa bàyyi moom bi mu lay jur la mu war a xam xam na ko ba pare xam na ko ba pare waaye bi ngay dikk ci àdduna xam-xamu sa bàyyi indiwoo ci dara nga ci indiwu jëmm ji dong nga indi ñu ni jëmm jaa ngi nii nee na nag ñett moo dox sa digganteeg sa bàyyi benn nga jot sa baay maqaama moom taxawoon nga taxaw ci benn nga suut sa baay fa mu nekkoon nga weesu ko ndax yàlla yemul fenn ah. benn nga yées sa baay te lu ci ne jëf a koy mandargal kon nañu xam ne ndono yi ñu fi fekk du toog di puukarewoo suñuy maam ak suñuy baay dong ngay tax mbir mi avancé ñoom dañoo sonnoon kon dañoo war a sonn ci toolu lislaam bi ñag ko aar ko mu jaral ñu dara fii koo fi mën a tudd am ñu jóg ba mu des lislaam koo fi tudd dana am ñu jóg dal sa kaw ba mu des lislaam loolu nag moom moo war a jeex jataay bii lillaahi wa rasul ñoo ngi koy ñaan kilifa yi fi teew ñoo ngi koy ñaan kilifa yi fi teew lii nañ ko saxal amul dara lu dox suñu diggante ak ñun maanaam différence d'idéologie ci gisin xalaat bu mu mën a doon mais yàlla ko ëpp xanaa mais yàlla war naa mën a doy waliif ñu toog te yàlla ji ñuy yaakaar yërmande kenn la yonent bi alayhi salaatu kenn la téere bi yàlla bii lenn la jubluwaay bi lenn la ndigal yi lenn la tere yi lenn la kon nañu Allah allahu akbar allahu akbar lii ñu jël doy loo ko jiital ko ci sunu